Isma, t'as repris ta story. Désolé, j'ai tout pris hier, il n'y avait que moi dessus, et que moi. Mais bon, c'est bon, je te la rends. C'est toi le patron. Repose la question. qui est le plus beau Si c'est pas lui, c'est qui C'est qui oh, hein. Lui, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris Vous quoi, les gars Rotation, rotation. Il a pas, il a pas compris. Il a pas compris. Avec la chemise. Avec la chemise. Ah, ah, accordé, tout est accordé. À tout 2021 bi mu tago. yal na yobale suñu Nakate Bay fi À tout 2022 bi ñuy dugg yal na nek atina tangé. yal na nek at bi gën ci ñun yal na nek suñu sangat lépp lu waaye di ñaan mu nekk ci xolam yàlla na ko ko yàlla may mu nekk lu gën ci moom yàlla nañu yàlla doolu sutura may ñu luñ terale suñu waajur di ñaanal pépp doomu aadama gudd fan gu ànd xewal sutura àddina ak àllaaxira yàlla may ñu xolu muñ may ñu kàttanu muñ yàlla musal ñu ci feebar musal ñu ci lépp ci barke alxuraan karim may ñaanal ñëpp fu waaye nekk ci kër àddina yàlla na la yàlla dolli sutura li sa xol yaa ko xam yàlla na la ko yàlla may ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi